Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal jàmm ci yëglekaay yi dañu yàddu jëmale ak réew mi quotidien mi nga xam ne rek xëyee na ni ki tey jii lu jëm ci wàllu déguerpissement yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal jëmale ko ci kaw ñii di marchand ambulant yi yéene kaay bi ne maire bi di Alioune Ndoye démb doon na amal ab ndajeg taskatu xibaar yi nag ma ngay xam ne ne loolee muy def nag du ca dellu ginnaaw yoota te ci noonee sax nag ma ngay kii di président Bassirou Diomaye Faye yéene kaay bi ne démb tàngoon na jéer ca diggante marchand ambulant yi ak agent municipaux yi nekkee ca Dakar Plateau boo moytuwulee nag mbir yi dana yegg fu ñu ko foogeewul ndax maire bu Dakar Plateau di Alioune Ndoye ma ngay xamal ñi nga xam ne rek ñoo di ambulant tablier yi ne ci gat sa gat sa ca lu ñu jëm moom maire ba nag démb ca ba muy janoog taskatu xibaar yi xam na ne ni daal dina recruter waat ay ndaw yoo xam ne rek ñi ngi ci biir commune bi su ko defee ñuy mën di jàkkaarloo ak ñii di marchand ambulant yi 24 heures yëglekaay ne Alioune Ndoye mi nga xam ne rek yooyee muy amal waaye ma ngay xam ne ni nag daañu tabax ab centre commercial bu yees Vox Populi fellu ko ne jàppante yu métti yi nga xam ne rek am na ci diggante tablier yi ambulant yi ak ñii di agent municipaux yu mairie bu Dakar Plateau Alioune Ndoye mi nga xam ne rek mooy maire ba jamono ji nag ma ngay génn di fësal yoon wi mu war a jaar ngir setal Ndakaaru ci biir yëglekaay bi nag ma ngay xam ne ni dañoo nekk ci situation boo xam ne rek duñu jéggal kenn duñu pardonné kenn waaye nag daañu continuer suñuy opération de déguerpissement te daañu assumer suñuy acte sama mission la gàllankoor liggéey bi nga xam ne rek war naa koo amal fépp foo xam ne rek Carrefour la mbaa muy avenue fii ci ndakaaru rek daañu fa fexee jëlee tablier yi ak képp kuy marchand ambulant lu jëm ci wàllu centre commercial bi nga xam ne rek R plus 5 lay doon daañu ko taxawal ci noonee moom Alioune Ndoye nag ma ngay woo ambulant yi naka noonu ñii di tablier yi nag ngir ñu daal di toog waxtaan li fi xewoon ci àllarba ji ñu nag ma ngi koy ñaawlu góor a sëy di xamle moom itam ne dañoo bëgg jamono ji ay waxtaan yoo xam ne rek daa ñu wut ay saafara ci situation bi nga xam ne rek moom la ñuy dund ci jamono ji lu ñu mel nag saafara su sax dàq lañ ci bëgg bu fekkente ne da ngeen ñoo bëgg a jëlee ci kaw tali bi ak ci yenn marché enquête yëglekaay moom itam nag daal di xëyee ci opération de déguerpissement yi nga xam ne rek moom la amal yéenekaay bi dippeeko bomb ambulante ginnaaw jàppante yi nga xam ne rek moo xewoon ca Colobane Sandaga nag ñaari fan a ngi nii nag yëf yaa ngi jox ci diggante ambulant yi ak ñii di agent municipaux yi Dakar Plateau mu fekk jamono joojee nag ambulant yi nekkee ca diwaan bu Kër Massar ak ci Rufisque nag takku ba dëgër ngir jàkkaarloo kilifay Sénégal Alioune Ndoye mi maire bu Dakar ma ngay xam ne nag nag bu fekkente ne état bu Sénégal daa bëgg ñu dakkal lu ñu mel nag na bind ab leetar boo xam ne rek dafay leeral lu ñu mel jébbal ñu ko général Tine mi nga xam ne rek moom mooy jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir réew ma ngay xam ne ne circulaire boobee nga xam ne rek moom la xaatim adressé wu ko ñii di mairie yi des ba tey ci yëglekaay bi àddu jëmale ci lu jëm ci wàllu xëyum ndaw ñii juróom ci ay solution nag kii di Serigne Mbacké njaay mu ngi koy joxe ci biir yëglekaay bi yër leen ko ci ni mu gën a yaatoo àddu jëmale ci leneen mu soxal téeméeri fan yi nga xam ne rek jomaay def na ko ci bopp réew Sénégal ginnaaw bi ñu ko falee ci élection présidentielle yi yéenekaay bii di Le Quotidien xëy di defub jàngat ne projet sans rupture lañu fi nemmeeku président Bassirou Diomaye Faye ak Elimaanu jëwriñam ña ngay bàyyeeku ba nëgëni si nag ci biir lotel yi ay audit yi moom lañu fi sumb càmbar lu jëm ci wàllu yoon wàllum diplomatie ak ay chantier yu mag a mag yéenekaay bi ne Ousmane Sonko jamono ji nag ma ngay tàbbil njiitu réew mi ci ak lëndëm Sud Quotidien daal di koy feelu xëy bind ci xëtam bu njëkk ne gouvernance bu Diomaye Faye nag cent jours sans chantier ginnaaw téeméeri fan yi nga xam ne rek ci la leen askanu Sénégal ci bopp réew Sénégal président ba Bassirou Diomaye fay nag ma ngay dajale ay chantier yoo xam ne rek nañu ci yoonu rupture la ñu nekk ak jub-jubal ak jubbanti jamono ji nag ku nekk ngi joxe gis-gisam ci régime bi nga xam ne rek moom moo fi taxaw ngir doxal ci lu jëm ci wàllu bonne gouvernance lu jëm ci wàllu état de wàllum dundu gu cher gi nag wàllum yoon ak diplomatie lu jëm ci suñuy ressources naturelles waaye nag wàññi lépp loo xam ne rek moo jëm ci dundu gu cher gi nga xam ne rek moom la njaboot gi di jooytu les éco yëglekaay ne moo tax jamono ji nag mayetuñ leen dara grace bi nga xam ne moom lañ leen joxoon nag lépp daat nañ koy dindiwaat fi mu toll nii nag Macky Sall ak ay ñooñam nag ña ngay dal ci kaw Jomaay Faye ak Ousmane Sonko ñoom ñooñee nag ña ngay xamle ci biir yëglekaay bi nag ne Ousmane Sonko dafa confiné ki nga xam ne rek moo di président de la république ba noppi di doxal ba tey ñu ci yokku ne nag di yóbbu Jomaay Faye ak Ousmane Sonko nag ñoom xamuñu ni ñu war a doxalee xamuñu ci ban direction la ñu war a jaar Vox Populi ne waa APR kay jamono ji nag ña ngay def bilan boo xam ne rek dafa soxol téeméeri fan yi nga xam ne rek ci le président Bassirou Jomaay Faye jiite bopp réew Sénégal ak léegi ci biir yëglekaay bi ñu fay xamle ni daal Jomaay ak Sonko ko daal dañoo mel na ñuy làmbatu rek ndax xamuñu fu ñu war a jaar ak fi ñu war a teg seeni tànk moom premier ministre bi nag saay su nekk ma ngay def ay jéego yoo xam ne rek dafay suul président de la république ngir fësal ay action ma laa séglekaay moom itam xëy àddu jëmale nag ci téeméeri fan yi nga xam ne rek jomaay fay def na ko ci bopp réew Sénégal yéenekaay bi ne APR ma ngay massacrer Ousmane Sonko Sud Quotidien ne téeméeri fan yi nga xam ne rek jot na koo def ci bopp réew Sénégal moom jiitu réew mi ma ngay xam ne ni nag dina ci janoo ak ñii di way taskatu xibaar yi laas quotidien daal di koy jàkkaarloo la boo xam ne rek nar naa doon exercice bu am solo Ngagne Fall mi nga xam ne rek docteur en communication la nekk jàngalekat foofee ca université bu Grenoble gis na daal waxtaan yi nga xam ne rek moom la ñu war a amalee ca Palais ak ñii di way taskatu xibaar yi nag dafay marqué benn pas ci bi nga xam ne moom la ñuy wootee addu jëmale ak lu jëm ci wàllu déclaration patrimoine kii di Serigne ba Gueye mi nga xam ne rek moo jiite of nag ma ngay sàkku ci directeur généraux yi nag ak ñii di personnalité yi nag ngir ñu daal di ñëw def seeni déclaration patrimoine ni ko jëwriñ république amalee ci biir yëglekaay bi nag ma ngay xam ne ni ñi bokkoon sax ci gouvernement bi fi jógee nag ña ngay amal seeni déclaration de sortie addu jëmale ak wàllu tàggat yaram ligue des champions ak euro 2024 stade yëglekaay ma ngay xam ne ni Bellingham am na victoire ballon d'or waaye lu jëm ci wàllu euro bi nag ña ngay xaar final bu mag bi nga xam ne rek war naa dox ci diggante Angleterre ak Espagne jeexale yëglekaay ak Le Soleil ma ngay xam ne ni lu soxal ñaareelu tour yu bakk yi nga xam ne rek doon nañ ko amal ab la ñu teg loxo